Azoura dalal ak jàmm. Euh, ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk internet di ñuy seetaan. Azoura tey trois pièces nga laal de. sañse nga de. waaw anticiper vendredi bi. allah rafet na. taarkaal la. gëj naa ko sol mm-hmm. lu tax. waaw naa ko sol mu ko mu ko daan sol moom ga màggal laa ko doon sol wala gàmm. Mm-hmm. am naa mbégte aussi tamit bon ñëw si plateau bi. parce que c'est la mhm. première fois di la nuyu yow tamit. Mhm. Ah, bi tey bi tey mooy technicien bi man Moustapha ah, man bi tey sa numéro bi tey laa gis sax de. Hmm. Ah, bi tey moo doon woo waaw du hmm. nuyu borom kër gi. Mhm. du nuyu borom kër gi parce que franchement borom kër gi moom. naan sama tonton la sama xarit la. ñu bokk Sénégal. du nuyu sénégalais yëpp. yéen ñaanal jàmm ak salaam. amiin yaa rabbi ñu bokk di nuyu ki nga xam ne maanaam mooy son excellence. Mhm. muy président de la république di ko di ko ñaanal jàmm. Mhm. waaw di ko ñaanal jàmm bu baax di ñaanal jàmm aussi tamit son premier ministre di ñaanal gouvernement Sénégal. Mhm. waaw bu mu nee bu mu nee bu mu nee gouvernement Sénégal moom bàyyi bàyyiwuma ñëpp quoi. parce que ku lim rek fàtte te damay bañ a fàtte. waaw di nuyu Sénégalais di nuyu ñëpp di nuyu waa diaspora bi. di nuyu ñuy di seetaan. di nuyu patriotes yeeg ñëpp waaw. voilà dañuy rek euh, daal di tàmbali li nga xamante ne moo di waxtaan bi parce que internet yëpp ñu ngi la doon laajte sànq ba tey ah. donc yegg si nga dañuy daal di dugg rek euh, ci waxtaan bi ñu bëgg rek nga ñëwaat tuuti ci sa relation ak Ousmane Sonko ak euh, seen première rencontre ginnaaw ba nga jugee kaso ak ginnaaw bi nga xamante ne gisewaat ngeen Azoura waaw ah, ni may wax rek ama man sama rencontre Ousmane Sonko mm-hmm. maanaam lépp loo gis yàlla jàppul nit jàppul jàppul nit loxoom rek na ko na ko am kii laa lay jox kii laa la dénk. Mhm. dafa am si ay nit yu muy jaar. Mhm. waaw lépp loo gis dafa am lu muy jaar. waaw micro bii ngay gis ne am na fu mu jaar ba mën ba nga mën mhm, ma booleeg moom waaw may mën a jiyee maa ngi bu baax. nu mu leen boole. waaw bon man xam nga depuis deux mille quinze man. ma suñu nee politique man sama maam politicien bu mag la. Mhm. lu xamul. Mhm. man sama maam moo ñu ko nekk maire Padois. ok danga gis loolu moo ñu ko nekk maire bi mhm. waaw nekk na bu jógee musul lekk mi xaasu moo jéem ñu boole mooy boole bi sax bon comme ñu may wax rek. du boole boo xam ne maam da ngay ñëw mu jàpp sa loxo ne la non bi ñu toogee mu naan ma. Ousmane Sonko doo ñëw ànd ak sama leader yi ma ne ko sa leader man man du ma politique mu ne ma di nga politique ma ne ko du ma de. <laughs> parce que man politiciens moom moom kenn laa si gëmutoon. Mm-hmm. moment yi may wax waxi politique moom gëmutoon kenn. Mm-hmm. waaw bii bii bi 2011 passé laa laa ba politique. Mm-hmm. waaw ak ma mars 2023 bi. ci laa bàyyi lu bëree bëri. waaw mais bi ma gisee muy dem réunion di ñëw ma gis ko mu ngi sonn nag waaye mu ñu mënu maa ngi damay dem réunion ma ne ko réunion boo xam ne boo ñëwee sa a dee poussière mhm. doo lekk sax doo ko mhm. mu mhm. man jëlee fu fekk fa jox benn femme boo xam ne mënul ñibba Kër Massar femme bi responsable passif la responsable passif te mu la waxee turam bu ma la waxee Maimouna Dieng moom maanaam fi jaar ak Sonko maanaam fi jaar li nga xam ne man xam jam naa cee xam Hmm? da ngay yéem sa bopp. Mm-hmm. waaw dem na bu doon jël dépense am sax di jox nit pour pour pour mu ñibbi. Mm-hmm. wax la. kon dafa yàgg bëgg politique. non xanaa dégg lu la wax. du yàgg bëgg politique. mais dafa yàgg dafa jàpp dafa sonn ci maanaam dafa moom mooy moom mooy locomotive Pastef. Mm-hmm. maanaam boo gisee ñi daan waaw muy muy mun a jëyee nangam nangam ma ne leen bañ def leen nànk xam nga yéen bëgg leen ku laal Sonko. li ngeen ni ngeen bañee ku laal Sonko nag ñun noonu lañ bañee ku laal muy ndax ñoom ñaari benn lañ. ba ñuy xamante ñun fekkee woon. dëgg la. kon nit booy wax si moom la nga fekk nga nga xam ko. Mhm. mais doomu aadama yi duñ xam nit dañuy jékki-jékki attaqué doomu aadama mhm. waaw man sama diggante ak Sonko may mun jéem moo si dox lu bëree bëri. Mhm. waaw moo dox lu bëri. moo dem moo tax nga dem ba am këram ak yépp waaw ndax premier jour bu mu demee bi mu ñëwee mënu ma mënu ma kër Sonko laa jógee ma ne ko ba demee nga nuyul ma ko bi mu ñëwee waxuma dara. bi mu demee semaine ma dem ma dem ma dem Kaolack ñëw mu dem réunion bi mu demee réunion ko ànd sama leader bi. mu ne ma ah toppal fële xam nga rek. Mhm. ma ne ko ah sama livre maa ngi koy suivre de moment yii maa commencé suivre. Mhm. mais commencé suivre nag di commencé ba 2017. 2017 mhm. bi muy bi muy bi muy dem euh, plus forteresse noonu. dañuy nekk benn député noonu. ci laa commencé nag commencé dugg nag ci programme. Ah, mais nag mu ngi mën jéem moom moo tax ma xam. ma xam ma xam mais lan moo la motiver nga topp Ousmane parce que sànq nee nga mbirum politique yow ñoru la woon wala politiciens yi gëmoo leen woon. lan nga gis ci Ousmane Sonko li nga gisul ci beneen politicien. xam mhm. mooy dëgg boo gis bu la àq ci yenn politiciens yi. Mhm. naan ñu wax dëgg doomu aadama mhm. bu la tey tey amul dama lay wax benn affaire ci biir këram il est digg bi lay ba ci bii këram laa la wax amul ay soxnaam amul ay doomam maam lu mu la bëggoon da lay wane ne kaay de lii bu mu ko defati bëgg mu dee. nekkal ci ligne bi man bi am na benn video mu fi def. ma ma ne ma ne sëriñ si yéen ñuy seetaan bi ma téye bant bi taxaw côté palais di bi bi ñu xëyee war a dem ne mi ko tur daf ma woo ne ma bàyyil sëriñ si ñoom xam nañ lépp may baleen baal. da leen teg ci yoon daal. Mm, amul xol amul garde corps amul protocole amul keneen amul keneen moom lu la bëgg da lay woo bëgg a ñëw waaye nag du xas doomu aadama nag. Mm-hmm. du xas la woo bëgg a ñëw du la xas. du xas kenn du xas doomu mm-hmm. du la xas. mais nee nee nañ tamit bu daan génn moom mooy tànn ñi muy àndal. kan ci Ousmane Sonko. bu daan génn. waaw mooy tànn ñi muy àndal délégation yi muy àndal mooy di tànn. ah non non ah. Mm-hmm. Mm-hmm. du dàq doomu aadama. Mm-hmm. mosuma gisee fu mu tànn fu muy waxee ne nii lañ ma topp ñii buñ ma topp. des nag dina ñu war a dem kër kilifa mu ne yéen xaar leen ñu. dem. sax dañuy dem kër kilifa mu ne ñii nañ toog xaar ko. parce man mii di wax yow noonu laa mel. des ma war a dem kër kilifa ma ne diw nañ ma toog xaar. man des fois ma war a dem fenn ma ne ko kay rek xaar ma waaw. lan lan moo boole Azura ak drapeau bi. ak drapeau bi loolu la foofu laa bëggoon ñëw. waaw man man suy militaire nag. Hmm, militaire nga. militaire nga woon waaw. Ah bon foofu nu mu ah wax ñu dara si armée bi. ah non armée mënu ma wax dara ci armée bi. non mais sa mais man mais man sama jaajaaru armée. Mhm. ji nga capitaine capitaine Dieng mi nekk ci plateau yi di wax di yàq Ousmane Sonko di xamee naan ko amul amul programme amul programme. Mhm. moom moo formé. ah bon ci ah naan nit. ki naan kii ni am nit boobu noonu capitaine capitaine capitaine. capitaine Dieng capitaine Dieng. Mm-hmm. ko. capitaine moom moom si boppam xam na kan mooy Azoura xam na bu baax a baax a baax mu ba muy dëkk unité mm-hmm. man moo tax ma dem marine nationale. kon bu taxawee ne Ousmane Sonko amul programme man damay xam ne kii li muy wax ne du xam-xam. man moo tax moom moo tax ma dem marine nationale parce que bi mu amee mooy 17. ñu bi ma leen mën di seet ma ne ko da ma yóbbu sapeur mu ma déedéet sapeur dafa fees daal la yóbbu marine nationale mi demee marine nationale ñun Hmm. parce que nous nous nombre de quinze. waaw ah. commando marin quinze personnes. Azura loolu du lu ndaw waaw moo tax. moo tax bu ma gisee nit ñi di nit ñi di wax de gauche à droite non Azura fii barke alquraanu karim damaa sama dama see ko dama see maanaam <laughs> ah loo xanaa dama maanaam suma fit gi ñemewul ñem li may ni may alluré suma fit bi ñemewul ma ko ñemewul ma ko. ñemewu sa fit yow. taxul déedéet ma ko. <laughs> maanaam boo gisee loolu yëpp nag am na lu ko wut. Uh-huh. parce que bi ma bi ma bi bi ñu demee bi bi ñu demee ba ma bàyyi armée la sama xol bi commencé boobu ñu may jaay injustice boobu xam. nga armée amul dóor armée boo xasee jugee sa ko boo xasee jugee euh, bango amatul dóor. Mhm. maanaam boo xasee jugee ar boo xasee jugee bango ñu nga def góor def IFKIA mooy beneen formation bi lay wane formation professionnelle bi fi ngay dugg sa professionnalisme. Mhm. foofu boo sa paree amatul dóor. Mhm. waaw li ngay xëy mooy maanaam dem monté ji événement am ñu génne la wala mais dafa amoon benn linnaa bu ñëwoon nag linnaa malak xam na bu baax li may wax ñi may seetaan xam nañ bi mu ñëwee marine jugee gendarmerie an muy concours euh, marine nationale bi jàll marine ñëw di dóore waaw bi ñu ma dóoree nag ci laa ko na dóora dóorati nag man kenn du ma dóor hmm. man ay dóor moo tax ma ba dóor ay dóor parkaat man kenn du ma parkaat man sama papa musul dóor hmm. waaw moo tax man kenn du ma dóor ay dóor moo indi jafe-jafe waaw ay dóor ak ay torture yoo xam ne xam nga xam nga nit hmm. nit formation bu jeexee jeex na mais au delà de formation ay kaay ataayal maag na yoo xam militaire